أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhanahu wa taala di jël ñaari aaya ci suratul baqara aaya 183 184 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala moo ñu ciy jàngal ay atte ci yenn jaamu yu mu ñu sant muy attey koor dinañ jële ci aaya yi juróom benn njàng ci ñaari aaya yi bu ci njëkk mooy fardiyatu siyaami wa huwa shahru ramadan farataal gi yàlla farataal woor weeru koor fardiyatu siyaami farataal gi ñu farataal koor wa huwa shahru ramadan te mooy weeru koor farataal gi ko yàlla farataal ne dañ ko war a woor ñaareel mooy assiyaamu yurabbi milkatu taqwa fil mu'min koor yar gi muy yar doomu aadama ci ragal yàlla subhanahu wa taala ngëm gi muy def ci moom ñetteel mooy asiyaamu yu kaffiru zunub koor day tax yàlla jéggal la say bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man saama ramadan imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zambi képp ku woor weeru koor dara taxul nga woor lu dul gëm yàlla ak bëgg tiyaaba yonent bi nee na yàlla dina la jéggal say bàkkaar ñeenteel mooy ruxsatul iftaar lil maridi wal musaafiri may nañ yoonal nañ dog ci ku feebar ak kuy tukki yoonal nañ ci yow nga bañ a woor képp kuy tukki mbaa nga nekk koo xam ne da nga feebar sharia yoonal na ci yow may na la nga dog sa koor su fekkee danga feebar mbaa ngay tukki su fekkee almaridu ku feebar lahu xaalataani am na ñaari ton moom mi feebar am na ñaari anam al an al ula an yakuna maraduhu shadid fa hada yajibu alayhi an yaftara ki feebaram bi tar trop dem ba jiggi dayo ah kii moom dañ ko sant mu dog kenn sant ko mu woor wasaani ñaareelu nit bi an yakuna maraduhu gayru shadid kii de feebar bi tarul lool kooku moom dañu sopp ci moom dañ ko sopp su ko neexee mu dog kële nag dañ ko exiger mu dog lu tax parce que feebaram bi dafa jéggi dayoo kii nag feebar bi feebar bu ndaw la rek dañoo sopp ci moom mu dog juróomeel ci njàng yi ñuy jële ci aaya yi ñuy jël mooy almaratul xaamilu jigéen ju ëmb awil murdiu wala jigéen juy nàmpal dalla qawluhu ala alladina yutiquunahu an annahu yajuuzu lahuma al iftar ma al qada jigéen ju ëmb wala kuy nàmpal tegtalu na ci ñoom aaya bi fi yàlla naan wa ala allazina yutiquunahu ñi nga xam ne mën nañ ko waaye ñoom ñaar ñii ku ëmb wala jigéen juy nàmpal dagan na ci ñoom ñoom ñaar ñu dog waaye ma al qada day ànd ak fay jigéen ji bu ëmbee ragal li mu ëmb yàqu wala mu loru day dog mais day fay jigéen juy nàmpal mu ragal li muy nàmpal loru ndax ween yi du am soow day dog waaye ma alqada day ànd ak fay wa kaza asseyxul kabir naka noonu mooy màgget fa innahu yuftir waaye wala yuqdi moom day dog te du fay màgget moo xam ne mënatul tële na day dog te du fay wal maridu maradan la yurja baruuhu kadhalika naka noonu ku feebar koo xam ne yaakaaratuñu ne dina wér day dog du fay illa anna alayhima lu dul war na leen ñoom ñaar ñii ma mujjee wax kan ak kan la kan ak kan laa mujjee wax ah ñan ñaar laa mujjee wax ku màgget ak koo xam ne yaakaar fi mu mu wér ku feebar yaakaar fi mu wér ànd leen ak man waay am lu
waaw illa anna alayhima war na ñaar ñooñu ay atte la ñuy wax de te daf ñuy dab ñun ñu toog fii laaj na bu la dabee nga xam lu ci yàlla wax beneen mooy da nga yor soxna wala nga yor ay jigéen lii ñuy wax ay atte la yu jëm ci ñoom bala ñuy wëri Samba ak Demba nag day fekk yow nekkoo ci kër gi mënoo ko xamoo ko ñaar ñi ma mujjee wax ku góor ku màgget ku feebar koo xam ne yaakaaratuñu dina wér ñaar ñi luy seen at duñu woor de waaye dañuy lexalaate su nit ñi wooree ba ngoon dañuy lexale bépp ngoon miskin dañuy jox miskin bi mu lekk ndogoom ngoon gu nekk ba koor gi jeex minimum 1000 francs wala 750 ah 750 ba ci 1000 francs dana tane gis naa ñoo xam ne dañuy xool weer wi yëpp ñaata la ñu génne ko jox ko benn miskin pour mu jëriñoo ko weer wi yëpp globalement rek ñu génne ko joxe ko benn yoon mu jeex naka noonu mbokk yi kama anna al mar'atul hamil naka noonu jigéen ju ëmb wal murdiu ak kuy nàmpal ñoom ñaar isa xaafata ala tiflayhima bu ñu ragalee seeni doom fa alayhima al qadaa wal itaam ñoom ñaar ñaar moo leen war dañuy fay di lexalaati da ngeen wax jigéen ju ëmb kuy nàmpal ñoom ñaar dañuy fay di lexale leer na isa xaafata bu ñu ragalee ala nafsayhima ci seen bopp fa alayhima bu fekkee ñoom ñaar ragal nañ isa xaafata ala nafsihima suñu ragalee ñoom ñaar seen bopp fa alayhima siyam duna itam mën nañoo woor bañ a lexale waaye bu ñu woorulee dañuy fay lexale mbokk yi juróom-benneelu atte fi siyaami fawaidun diiniya wa ijtimaiya koor dafa am ay njëriñ yoo xam ne yenn yi mu ngi aju ci wàllu diine yenn yi mu ngi aju ci wàllu adduna ci wàllu société bi ñuy dund moo tax sunu borom subhanahu wa taala bi muy jeexal aaya bi bi mu ñu sant ñu woor daf ñu ne in kuntum taalamuun bu fekkoon ne xam ngeen fekkoon ne xam ngeen njëriñ yi ci nekk ci wàllu diine su fekkoon ne xam ngeen njëriñ yi ci nekk ci wàllu adduna kon dara du leen tere lu ngeen woor wala mu jeexale ko in kuntum taalamuun fekkee ne xam ngeen li ci nekk li ci yàlla ëmb li ci yàlla denc waaye nag nit ñi xamuñu moo tax bu koor jotee feebar yi commencé tappale yi commencé man ci tarixa bi laa bokk tarixa bi du ñu woor man dama feebar ñii di tukki am na benn waaye boo xamante ne moom koor mus ko fekk Sénégal bu ñu seentu weer rek jël na vol ci guddi gi waaw fër utali Europe waaw bu yeggee ba ñooñu di séntu weer mu ne cëpp ñibbi Sénégal ndax rek bañ a woor nan yàlla dafa sutura te xamul li ci yàlla wax ci ay njëriñ njëriñ yaa ngi nii may lim bi ci njëkk mooy yaudu saim alxashiyatu min allahi taala fi sirri wal alani koor daf lay yóbbu daf lay tàmmloo nga ragal yàlla ci lu feeñ ak lu nëbb booy woor koor gi fan la lay yóbbu mooy nga ragal yàlla buñ la giseeg buñ la gisul xoola ki woor kan moo lay contrôler dafa am ay garde corps yu ànd ak yow dafa am ay caméra yu lay gis di la xool ndax yaa ngi naan boo duggee ci douche bi wala ci biir waañ wi wala sa biir néeg yow kese yooyu da ngay woor tàggu sa njaboot dem liggéeyi nekk ci àll bi ba ngoon jot nga ñëw anta baynaka wa ba- wa rabbik yow rek yaag sa borom kan moo wax ne yow woor nga yaag yàlla rek sa jabar xamul ne da dangaa yendu ci restaurant yi di dóor di dóor ba gàtt ñibbisi di deeneelu ah kenn xamul ci dara sa borom kër xamul sa papa xamul sa yaay xamul sa digganteeg sa borom moo tax boo tàmmee loolu da ngay dem li ki la ki la doon contrôler ba bi nga wooree ñemee dog ñeme woon nëbbatu di def yi bon te yooyu yëpp moon nga ko def loolu soo ko tàmmee def la yóbbu ba bu koor gi jeexee it ni nga ragale woon yàlla ci koor gi nga continuer ragale noonu yàlla moo tax koor bokk na ci njëriñ yim la yóbbu mooy day tax nga ragal yàlla xoolal xiif ni mu méttee ah nga ro- romb fii léegi gis ñuy jaay ginaar te sa poos lu bon bon cinq mille a ngi fi nga mën a lekk ci ginaar yi añ ba suur jënd ci boisson jënd fruit yi géex ba sonn ñibbi si daan ne, eh, soxna si eh, ndog ndox ndog bi ñor na te xam nga ne wooroo waaye xoolal doo ko def parce que yaa ngi xam ne am na ku lay xool ku dul nit am na ku tax ngay jaamu yàlla kon yu ñàkk fayda yi du la yàqal sa jaamu yàlla noonu ngay tàmmee loolu loolu moo lay tax boo demee tamit ëllëg ak si biir nga tàmm ragal yàlla googu ñaareel kasratu xiddatu shaw shahwa walisa urshida al aziba azibu ila sawmi koor day damm day daggate day yar bànneex bakkan bi nekk ci yow loolu moo tax yonent bi ba muy yar ndaw yi nga xam ne amuñu ay soxna mu ne ndaw lu ci bëgg am diine deel woor yaa maasara shabab man istataa minkum albaata falyatazawaj wa man lam yastati fa alayhi bisawm ah yéen ndaw yi ku ci mën a takk soxna takkal ku mënul mu ne takk deel woor gis nga boo wooree koor day dagg day arrêté bànneexu bakkan seytaane bi doon daw ci sa yaram di lay yóbbu ci nga mën a xool lu bon xool jigéen di futteeku yenn saa yi sax mu yóbbu la nga uti ko soo wooree koor gi day dagg loolu da ngay woor nga gis jigéen ju sol lu bon looy wax aus billahi mina shaitan rajim xoolal xoolal seytaane bi da ngay commencé di xulóog moom di xool ci suuf mais dootoo ko xool bu bëggoon dend ak yow nga déplacé wu ay boo woorulee tam nga ne ko ajaa kaay toog nii waay commencé di xooxi caaxaan mais gis nga boo wooree koor gi da lay yóbbu ci nga yaru di contrôler sa bopp sa bët sa lépp même dégg-dégg yi lépp kon koor njëriñ yi ci nekk moo tax yonent bi saa salaam orienté ndaw yi ne leen takk leen soxna ku ci mën ku mënul mun a deel woor kon du lay du lay benn ndaw naan no man seeka tarararira dugg na fi génn fii yonent bi saa salaam joxe na solution bi ku amul soxna rek mën nga am diine mu ne la wooral ñetteel yurabbi alshafaqa warrahma fi nafs koor day tax dalay yar nga am yërmande yurabbi alshafaqa nga ñeewant warrahma nga am yërmande fi nafs ci sa bakkan ak doomu aadama yi gis nga boo wooree nga xiif ba ngoon jot diggante 4 heures ak 5 heures ak 6 heures foofu la koor gi di méttee bu ñuy des bu ñuy wax des nay vingt minutes trente minutes foofu lay méttee loolu dina la yar dina def ci yow ñeewant dina def ci yow yërmande ba ëllëg ak si biir boo gisee waaju xiif nga xam ban taxawaay nga war a taxaw ci kii soo gisee ku sonn soo gisee ku loxoom jotul sa ginnaaw ndeke yow waroo lekk rek di bàyyi doomu aadama yi du ñu lekk moo tax yonent bi saa sallam ne laysa minna man baata shab'an wa jaaruhu jaa'i bokkul ci ñun ku fanaanoo sa dépasse suba sa dëkkandoo nekk sa wet amul lu mu lekk te yow nga denc yonent bi nee na yow bokkoo ci ñun sallallahu alayhi wa sallam ñeenteel mooy fiihi almusaawatu bayna al agniya wal fuqara wal ashraaf wal awda koor day tollale ku ñàkk ak ku am koor moo leen di tollale mbokk yi ndax seetlu ngeen ne ku woor boo amee alal doo xiif ku woor boo amul alal da ngay xiif xiif bi ban ñan kan mooy gën a xiif ñoom ñaar ñéppay xiif kii borom xaalis la milliardaire la kii amul dara ñoom ñaar ñëpp dañoo woor ñu ngi ni toog coono gi ñépp a ko yëg yenn saa yi sax borom alal bi gën laa sonn ndax tàmm yu neex yi mu tàmm comme yow moom tàmm ngaa xiif tàmmoo suur yenn saa yi sax moom nga gis leen moo tax ñu ci ëpp dañuy tëdd rek ja teg seen biir yi ci kaw ne la leer di bërëngu rek nag di dalaw rek gis nga yenn saa yi sax ñoom ñu gën laa sonn ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy borom alal yi parce que du ñu tàmm yar seeni bakkan ci wàllu jaamu yàlla te kële moom léeg-léeg mu doon góorgóorlu ci yowmul isnayni yowmul xamis ayaamul biid asura tasua arafat kële nag ba waxee mu ne du ma bëre mbapat combat bu mag bi rek ñu bëri ci ñoom loolu la ñuy wax moo tax koor day tollale diggante ko am ak ku ñàkk diggante sang bi ak jaam bi ñépp ay yem mbokk yi lii juróomeel ci ay njëriñ yi jële ci njëriñu koor yi mu ñuy yar ci àdduna ak ci diine mooy taawidul umma an nizaam wal waxda wal witham koor daf ñuy day day jàngal xeet wi organisation gis nga bu ñu bu ñu wooree dañuy organiser dootuñu dootuñu def comme suñu woorulee di lekk heure bu ñu neex di doxi heure bu ñu neex di tëdd heure bu ñu neex gis nga ku woor day organiser bisam bi yëpp day régler réveil bi ban heure lay sonné pour xëdd wala bu sonné mu jóg xëdd dem jàkk bu paree xëy liggéey na liggéey na liggéey na ba 5 heures anama kër ga pare na mu ngi organiser nu mu naafila pare na mu ngi tëdd gis nga imaginel bu koor jotul gars yi dañuy tambambalu ci mbedd yi ba 5 heures du matin doog a tëdd seen yoon nekku ci mais gis nga koor ñuy tàmmal organisation ñu mën a respecté waxtu yi lu nekk ñu def ko ci waxtoom ndogu ci waxtu xëdd ci waxtu di julli ji di naafile ci waxtu di def lépp organisation bu jub xoj kon koor dafa bokk ci loolu mu ñuy tàmmal waaye wal wihda bennoo da ngay gis ni julli ji koor nu ñuy defee solidarité di dimbalante suukaru koor fii ndogu fii lekk yi ci jàkka ji jàkka ju nekk nga gis benn waay bu baax yenn saa yi nga gis ku ñëw ne jàkka ji incha allah ba koor gi jeex maay joxe ndogu bi billaay wallaay taala di jox lépp nga gis jullit ñi ak a neexoon bu koor gi jeexee ñu continuer ko mais mal asaf te pourtant koor gi looloo tax mu jóg pour bu koor gi jeexee nga xam ne nit ñi nit ñi ni ñu sonnee dañ leen war a dimbali ba tey rek mu continuer juróom-benneel mooy yazhabu almuwaadu almurtasiba fi lbadan wa bi zalika tuxsinu siha assaim koor day yóbbu yenn feebar yu bare bare bari yu ay lekk ak xolal ku jabe ku am nangam ku am nangam da ngay gis koor di di di defar yaram bi ñu bari dañ naan man mënumaa war parce que dama feebar ndekke koor mooy wéral nit koor day wéral nit loolu boroom xam-xam yépp a ko wax surtout ñu def médecine am na sax asar buñ ci wax ñu naan suumu te sixu wóor leen ngeen wér mbokk yi kon ci gàttal lii mooy li nga xam ne ay njàngin ay fawaid ay njëriñ yu ñuy jële ci ñaari aaya yi ñu fas yéene jël tey waaye balaa ñuy jël ñaari aaya yi dinañ dugg ci maanaa ñaari aaya yi mooy lamma haajara rasul sallallahu alayhi wa sallam ila al madina yonent saa sallam bi mu gàddaayee jóge màkka dem médine médine mujj a nekk daarul islaam kërug islaam axasa tashri yanzilu ci la loi yu commencé wàcc màkk bañ fa nekkee yonent bi def na màkk fukki at ak ñett lan lay jàngale pas pas day defar doomu aadama yi xam ngeen dafa am ñaari mbir wala ay mbir yu nekk ci islaamu màkk loolu tax da ngay dégg borom xam-xam yi ne màkka ña fa duggoon ci diine amul naafiq naafiq yépp a nga woon Médine moo tax yàlla bu muy wax naafiq yi fu ñu nekk mu ne wa minal madinati du loolu la wax fii ci madina am na fi ñoo xam ne maradu ala nifaq seen xol yi dañoo feebar ndax ay naafiq la mais makka amul amul naafiq lu tax parce que formation aqida pas-pas bu wér këng la yonent bi dugal ci seen xol yi moo tax keroog beneen yonent bi ne kaay leen dem bàyyi leen màkk ñu mën a bàyyi ay jabar bàyyi ay doom bàyyi ay tool bàyyi ay magasin ñu bàyyi lu ne parce que lu tax parce que yàlla dugg na ci xol yi doomu aadama bu amee aqida ba yàlla dugg ci xolam loo ko bàyyi loo mu bàyyi loo ko def loo mu def mais bu yàlla ak leneen jaxasoo ci biir xol yi rek problème day am dañu laaj benn waaye ci Égypte benn tubaab ne ko islamiste yi day temps yi ñu ngi gagné golfe bi jël nañ Tunisie jël nañ Égypte jël nañ Yémen jël nañ Libye ñu ngi yëngu Maroc mais yéen Égypte mbaa bu ngeen demee ci nguur gi mbaa du ngeen yegg si rek jël seen jaasi daan ne acak muuru ku muuruwul ngeen dagg baat bi mu ne ko déedéet duñ def loolu mu ne ko lu tax mu ne bu ñu defee loolu dañuy am ay naafiq ay naafiq la ñuy am kon société boo xam ne ñi ci ëpp ay naafiq la ñuy doon mu ne ko looy wax ni mu ne ko waa mu ne ko ndax ki nga xam ne dafa jékki-jékki rek ñu ne ko suba boo génnee tegoo kol sa bopp jaasi bi day dagg sa baat ba tax na mu jël kol teg ci boppam kooku day nekk naafiq ndax ragalul yàlla mais lan la ragal jaasi bu dagg bopp bi jaasi bu dagg bopp bi la ragal moo tax mu jël kol gi daal di teg ci ju- jul darde di di jul darde di di jul darde di dana eey tahiyatul masjid après parakam insha allah mbokk yi fa fil ayat as-sabiqa ci aaya yi jiitu kaana hukmul qisaas aaya yi ñu mujjee woon jàng semaine bi passé lan la woon aaya fayu wal wasiya ndénkaane wal muraqaba lillahi ak sàmmonteeg yàlla fi zalik wa kaana min azami ma yakunu fi lmumin min milkati taqwa asiyam fa anzala allahu taala fardatu sawmi siyaami fi sana asaniya lil hijrati gis ngeen ba ñu ñëwee màkk nag yonent bi jógee màkk ñëw Medine aaye yi commencé wàcc farata yi ci atum ñaareel ci gàddaayu yonent yonent jógee na màkk première année deuxième année rek koor daa di wàcc fa naadaahum bi unwaan yàlla daa di woo sahaaba yi woo jullit ñi ci mandarga ci mandarga bu mu leen di woowee bis bu nekk chaque jour yàlla buy woo ñi ko nekkal ci kaw suuf benn baat rek la leen di woowee mooy ee yéen ñi ma gëm baat boobu nag saa yoo ko déggee am na ñu bokkatul ee yéen ñi gëm ñan ñoo bokkul ñi gëmatul kon ñooñu yàlla waxatul ak ñoom yàlla léegi ñi am imaan lay waxal kon ku amul imaan bokkoo yàlla mu ne yaa ayyuha alladina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يالا من يا أيها الذين آمنوا إيه نيما قم يا بحرف الندالة يا بموي إيه xarfu nidaa loolu ñu naan woote ku woote yàlla mu ne yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi nga xam ne gëm ngeen ma alladina ismu mawsul lil aqil ee yéen ñi ma gëm allahu akbar yàlla mu ne kutiba jàng nañ ko bi mooy ñetteelu bi mooy ñetteelu kutiba kutiba alaykumul qisaas kutiba alaykumul iza hadara ahadukumul mawt kutiba alaykumus siyaam yëpp farataal nañ lay tekki farataal nañ sant nañ leen yoonal nañ ci yéen wax nañ leen kutiba alaykum farataal nañ ci yéen asiyaamu koor koor asiyaamu koor sant nañ leen ngeen woor asiyaamu luxa koor ci làkku arab arab yi buñ nee baatu siyaam ñu wax ko liñ ci namm bu fekkee kese ñëwul ci jaamu yàlla li muy tekki mooy al imsak mooy téyewu terewu moo tax ci Maryam yaa ngeen ci suratu Maryam bi mu amee doom yàlla ne ko boo demee dëkk ba suñuy wax ak yow wax leen inni nazartu lirrahmani sawman ne leen man dama woor mana woor wooru ku lekk mais dama woor ci téye sama làmmiñ du ma wax gis ngeen ndoke koor kon li muy tekki mooy al imsaaku mooy terewu ci dara bañ a def dara wal muraadu huna wal muraadu bihi huna li ci yàlla namm fii ci aaya bi mooy al imtinaau yow mi koy def nga terewu anil akli ci lekk bul lekk wa surbi bul naan wa gisyaani nisaa bul sëy ak jigéen ñi kañ min atuluci lfajri ila gurubi sams fi fajar bi di fenkee di jóg ba jant bi sow diir bii fii nii bul ko fi def amma guddi mu ne uxilla lakum leylata siyaamu arrafas guddi nag moom bokk ci guddi moom jaxasoo leen ak jigéen ñi lekk leen naan leen wa kulu wasarabu xata yatabayana lakum xaytul abyadu min al xaytul abyad ñaan ñaan galle ay gal axoota jazakallah xayr jaaram jaaram ñaan ñaan kii sama kilifa la sama mag la
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اصلح لنا سلامنا برحمتك يا من وسع حسنا يا من
yàlla wan nañ ma jar jaaraama sax ma indi leen incha allah wanaa xotaan taw incha allah incha allah ñu jégalu ci dagg sunu borom subhanahu wa taala mu ne kon fi fajar bi di tàmbalee ba jant bi sow ila xurubi sams waaye am na benn mbir mu ndaw mu ci nekk moo xam ne chaque jour nit ñi dañ koy fàtte su benn waay xëyee fajar gi lekkul naanul sëyu fi ak jigéen ñi ñu ne ko lu tax mu ne dama woor est-ce que woor na woor na walla wooru lu tax wooru yéenewul amul yéene bi niya bi niyati imtisaali amrillahi taala bihi maa ngi yéene ci sama xol ne lii may def dama ci jublu jaamu yàlla googu ñuy wax koor su ko defee léegi woor na aw bi niyati taqarrubi ilayhi azza wa jalla wala maa ngi yéene jege yàlla li may def nii dama ci yéene ma ci nam ma jege yàlla léegi nag nga am koor léegi nga am koor waaye fële da ngaa bokk ci yone ñooñu yonente bi naan rubba saaimin fa laysa lahu min siyaamihi illa al ju wal atash am na ñu woor fekk jëlewuñ ci lu dul xiif ak mar gis nga rubba qaimin fa laysa lahu min qiyaamihi illa sax ku taxaw fanaane naafila ba bët set jëlewu ci lu dul tànk yu métti moo tax chaque jour dafa am benn jaamu yàlla buy tàqale sunu aada ak sunu jaamu yàlla aada ak jaamu yàlla lan moo koy séparé yéene dañ lay tegal léegi reer boo jullee gee ba pare julli gi déglu dars di julli gee dem ñibbi ñu tegal la reer nga reer ba suur tëdd foofu lan nga def aada amoo yàlla waaye nga ñëw bismillah def ñaan allahuma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban naar def sa azkar lekk pare def li nga sant def sa azkar am nga sa biir fees na am nga yàlla am nga ñaar sa biir fees na am nga yàlla bu njëkk ba nag loo amoon biir bu fees kese léegi nag ibaada yi chaque jour lan moo ko séparé diggante maye ak sarax lan mooy séparé bi yéene kii di yelwaande yi dama koy jox ngir yàlla fi sabilillah loolu am nga sarax waaye yéen ngir yàlla rek nga ni buxur ñut na ko am dangaa joxe amoo dara dangaa maye amoo sarax kon yéene yéene moo tax gis ngeen borom téere yi bind fiq yi néew na téere fiq bu ngeen di gis boroom xam-xam yi tàmbalee wuñ ci xadis innamal amalu binniyat néew na téere xadis yépp xadis bi ñuy def ci bopp bi mooy innamal amal binniyat parce que xadis yu yéene dañu bëgg doomu aadama lu nekk nga ngay yéene di beesalaat yéene même même sunu dars yi ñuy ñëw nii di def ku fi ñëw fekk sa yéene nekkul naa dem jëli dars ndax ma yokk xam-xam ma ragal yàlla da nga fiy ñëw nii rek jële fi doo fi jële dara sa ñëw du nekk ñëw jaamu yàlla te jullit moom léppam dafa war a nekk jaamu yàlla lépp dafa war a nekk ibaada ci moom yéene xadisu yéene bu ngeen ko jàngee di ngeen gis boroom xam-xam yi liñ ci wax su fekkoon ne kon ñun ñu ngi koy def kon sunu lu bare bare bari soppeeku na yàlla day fay yéene am na benn xadis buy boroom xam-xam yi nettali ne benn waaye ngi ni boo xam ne dafa faatu ruu am misaal timsaalu ci kanamu yàlla yàlla malaaka yi xool ay balancham jëfam gisuñ ci lu bon leen jaaxal ñoom malaaka yi mooy yàlla dana yowaaj yóbbu leen ko safara te fi misaani xasanaati yi malaaka yi gisuñ ci bàkkaar ba pare yàlla mu ne yóbbu leen ko safara malaaka yi sujjóot ci kanamu borom bi ne leen waaw kii lu mu def yow borom asamaan ak suuf yàlla mu ne kii dafa amoon yaay chaque jour buy jox yaay ji mu lekk muy jox yaay ji mu naan muy sang yaay ji malaaka yi ne waaw ñun kay ñu doon bind tiyaaba yi mi ngi nii yàlla mu ne dafa am lu mu nëbboon ci suuf mooy da doon wax yàlla na gaaw a dee ba ma noppalu yàlla na gaaw a dee ba ma noppalu loolu moo nekkoon yéeneem mais comme malaaka yi ñoom laa ya'lamuna al-ghayb xamuñu kumpa li nekk ci kaw lañ bind yàlla nag moo xamoon li nekk ci biir moo tax yal nañu yàlla jéggal rek yal nañu yàlla baal il faut ñuy sellal yéene yi ci lépp nag ci lépp nag ci lépp lu mu mën a doon loo bëgg a am tiyaaba sellalal sa yéene ci lii ngay def parce que yàlla day fay yéene yi yonent bi saa sallam ànd na ak sahaaba yi ñuy jihaati mu ne ay nit a ngi Medina de ànduñoo ak ñun doxuñu waruñu xeexuñu dugguñ ci benn xur waaye day yéen ak ñoom yéen ay tolloo tiyaaba yéen ak ñoom ñooy tolloo tiyaaba yéen ak ñoom yéen ay tolloo tiyaaba saaba yi ne ko yonent lu tax mu ne parce que ñoom yéene la leen yàlla di fay seen yéene la leen yàlla di fay kon mbokk yi kon koor ku ko bëgg a def fexeel rek ba bul bokk ci ñuy xiifal seen bopp fexeel ba nga yéene yàlla ne kutiba farataal nañ aleykum ci yéen asiyaamu koor kama kutiba comme niñ ko farataale woon yoonal ko santaane ko alal lazina ci gaa yi nga xam ne min qablikum ñoo leen fi jiitu woon ndeke koor aussi dinañ ci jàngee ne du ñun rek ñun ñoo ko doon defan yahud yi sax dañuy woor te ñoom ñoo ñu ëpp lu ñuy woor ñoom ñaata jour la ñuy woor 40 ñun 30 ñoom 40 chaque jour ngeen dégg ñu ne yow seen koor commencé la chaque jour ngeen dégg ko ci rajo bi bis nga xëy ñu ne la tey la seen bos jeex ñun 30 ndeke kon du ummatu muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam ñun julli ñi rek du nekkul ne ñun ndeke am na ñeneen ñu ko yàlla santoon waaw santaane gi yëpp lan la mu ne laallakum tattaqu ndax ngeen am ragal yàlla waxoon naa leen sànq ci fawaidu sawmi fid fi diin njëriñu koor ci diine waxoon naa leen ko lan la lay jural mooy laallakum tattaquun pour ngeen am ragal yàlla ndax koor da lay yar ba nga am ragal yàlla da nga gis benn waa benn waay boo xam ne bu wooree bu doon day tux cigarette dootul tuxati bu doon day naan du naan bu doon day dem def lu bon di njaaloo ji dootul njaaloo danaan gars yi damay sellala may sellal yu bon yëpp da koy bàyyi xataa yenn saa yi sax nga gis koo xam ne day changé day changé yére ut yére bu weex ut koppati ut kurus xataa si jigéen ñi da ngay dégg ñu ne weeru sellal lañ nekk gis nga kon koor ibaada boobu yàlla di wax ne dafay tax ngeen am ragal yàlla te xam ngeen ne mbooleen ibaadaat yi julli aj màkk saraxe lépp lu yàlla santaane def leen ko li tax yàlla sant ñu ko mooy at taqwa jël leen aaya yi rangale leen ko yaa ayuha nnaas ibudu rabbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum laallakum tattaqun kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum fa tazawadu ngay dem màkk mu ne fa tazawadu fa inna xayra zaadi ah gis nga ngay tabaski mu ne la lan yanaalu llahu luhumaha wala dimaaha walakin yanaaluhu ngay jàng alquran mu ne la xuzu ma ataynakum bi quwa wazkuru ma fihi laallakum ngeen di dund aaye pour fayante ko ku rey nit nañ ko rey yàlla mu ne bu ngeen ko defee am ragal yàlla ah loolu la wax walakum fil qisaas xayaatun yaa ulil albaabi laallakum mboolem mboolem mboolem mboolem aaye yi mboolem santaane yi yàlla santaane dafa ne buñ ko defee ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom la yàlla di nangul ku ragalul yàlla boo jullee boo wooree doo mën a def yàlla du ko nangu innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ñi ragal yàlla ñoom la yàlla àndal inna allaha maal muttaqin ñi ragal yàlla ñoom la yàlla dencal aljanna saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaa'i wal ardi u'iddat lil muttaqin ñi ragal yàlla problème bu ñu am yàlla génne leen ci wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ragal yàlla googu ñëpp lañ ko sant xataa yonent yàlla muhammad yàlla xool na ko ne ko yaa ayyuhan nabiyyu ittaqillah ñooñu la ko yàlla sante ñun ñi yaa ayyuhal ladhina amanu noonu la ko yàlla sante nit ñëpp yaa ayyuhan naas ittaqu lépp lépp mu ngi delluwaat ci taqwa moo tax yàlla fii mu ne laallakum tattaqun mu ne ayyaaman maadudaat ay fan yu ñu lim la ayyaaman ay bis la maalumatin yu ñu xam maadudaatin yu ñu lim ayyaaman ay bis la maadudaat yu ñu konte ñaata fan 29 wala 30 29 la li ko yóbbu 30 mooy fa in ghumma aleykum gisu leen weer wi mais weer ci l'islam 29 jours la li ko yóbbu 30 mooy gisuñu weer wi fakmilu iddata saaban salasina yowman kon mottali leen saaban fanweeri fan ay fan yu ñu xam la tisa wa ishrun aw salasun yowman bi xas bi sahri ramadan lu tolloog weeru koor bi kon ndeke gis nga bokk na ci surutu qubulul amal sart yi yàlla di nangoo jëf mooy mbir mi boo koy def nga def ko ci waxtoom tey ci ban weer lañ nekk ci weeru calendrier l'islam ci ban weer weer lañ nekk gars yi dee leen dee leen topp weer yi ah rabiu saani 29 rabi saani lu ci tegu laa ilaha illa allah su ko defee tey ku ne woon damay woor weeru koor xëy suba rek commencé ñu ne yow looy def nii nga damay woor bu ma ko wooree léegi nii bu ramadan bi ñëwee fekk wooroon naa ba pare ma anticiper ko ndax yàlla dina la nangul parce que weeru ramadan jotagul moo tax il faut affaire bi jot tey jii nii fi ñu toog nii bu ñu julli woon gee ba pare rek ñu ne bilaal li xaamal ñu julli suba ndax tey samedi la dimanche jarul ñuy ñëw jàkka ñun ñëpp nañ ko julli nii rek ñu continuer nelaw ba ba midi ñu julli suba ndax julli nañ suba moo tax waxtu bi foog mu jot lu nekk ak waxtoom tubaab bi dañ naan chaque chose en son temps du noonu ngeen koy waxee de noonu la bu fekkee mbir mi da nga ko bëgg a def su dul waxtoom yàlla du ko jël foog waxtu bi beneen mooy nga def ko ni ko yonente bi defoon yonente bi ñaata ñaat weeru ko da ngay dégg ñu ne benn fan kese la yenn saa yi nga dégg fi ay kàccoor ci Sénégal naan benn fan la ñun ñun ki ñu àndal xam na ko daf ñu koy dee du ñu sonal suñu bopp dañuy bàyyi ba fan bi jor rek moo wax ñu ko ñun ñëpp ñu woor yenn saa yi nga dégg yenn kàccoor ne muus a ko xam muus muus day lekk xoolal wax picc yooyu yàlla ne sahr ñu naan benn fan sahr la wax ba pare mu ñëwaat fi ne ayyaamam maadudaat ayyaam kay waxul yow mun kon lu ñuy def ak aaya yi wala li du alxuraan doyoon na rek yàlla mu ne weer sahr sahr lu mooy lan waaw fii mu ñëwaat ne ayyaaman maadudaat bu yox bu yemoon ci ayyaam rek doy na mais mu ne waat maadudaat ay bis yu ñu konte la ñu ne fanweeri fan la wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent borom bi mu ne ci fanweeri fan yi wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yi faman képp koo xam ne kaana nekk na min kum ci yéen maridan di feebar aw wala ala safarin mu nekk ci tukki fa iddatun na jël congé na jël congé na bañ a woor na dog xoolal danañ jàng ci aaya bi mbokk yi fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar ku nekk ci yéen ku feebar wala kuy tukki bu mu woor na bàyyi ba yeneen fan yi mu mu woor dinañ jàng ci aaya bi lan mooy yërmande lislaam yërmande borom bi subhanahu wa taala bu yàlla ne woon ku woor ku feebar fal force da ngay woor kuy tukki mu ne far force da ngay woor day nekk coono te yàlla yuridullahu bikumul yusra wala lu yuridu bikumul usra yàlla dafa bëgg ñun ñu nekk ci jàmm wala ngay tukki moo xam da ngay yëg ci avion moo tax da ngay yëg ci oto da ngay yëg ci fas da ngay dox ak sa tànk da ngay daw mu ne la bul woor bal sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yenn sahaaba yi dañ ko ne ah waaw mais ñun kay dëgg-dëgg ñun mun nanoo tukki pourtant mun nanoo woor di tukki de ndax amul coono mu ne laysa min al bir as-sawm fi safar bokkul ci teggin ngay woor di tukki laysa la wax laysa min al bir as-sawm fi safar beneen riwaaya bi mu ne yàlla moo leen may buur bu toll na yàlla bu leen mayee jël leen ba yàlla waru leen a may ngeen naan mën nañoo mënunu ixwaan kon yàlla ku bëri yërmande la ci lu mu wax ne bu ngeen wooree bu ngeen feebaree allahu akbar parce que même ci naafila guddi njëlbeenu lislaam bi yàlla di formé yonent bi ak sahaaba yi naan leen qumil layla illa qalilan jóg leen guddi ba mu des tuuti bi saar bi di jeex lan la wax alima anna minkum an sayakuna minkum marda am na ci yéen ñu feebar moo tax yàlla daal di koy dindi gis nga yàlla bu fekkoon ne buur la boo xam ne daf ñuy forcer wala bëgguñu wala daf ñu bëgg duma kon dafi ñu teg rek daan ne boo mënee boo mënul defal waaye xoole boo feebaree mu ne la jëlal congé da ngay tukki da ngaa feebar yàlla ne la bul woor fa iddatun jëlal congé min ayaamin uxar ba ci yeneen fan yi nga doog a woor fa ala man aftara li uzrin war na ki nga xam ne dafa dog ci koor ngir ngànt almaradu feebar awi safar wala tukki fa alayhi war na ci moom siyaamu koor ayaamin uxra yeneen bis bi adadi ayaam allati aftara fiha lu tolloog la nga dogoon loolu ngay fay xolal mënoon nañ laa wax ne boo dogee benn fan juróomi fan ngay fayoon dan la métti de bu yàlla waxoon nga feebar mu ne la waaw dogal waaye nag benn fan bu ne ñaari fan la dana métti de waaye xoolal li nga dog ñetti fan nga feebar ñu ne ñetti fan ngay fay juróomi fan la ñu ne juróomi fan ngay fay benn fan la ñu ne benn fan ngay fay mais xoolal ci fay boobu man gis naa ay jullit ci biir réew mi yoo xam dañ naan man du ma fayonte ak yàlla man dinaa fayonte ak yàlla yàlla ah sama borom ma naan dama koy fay mais yow xam nga yenn yi di jéem a ngan dijj dijj lu xel ak ngan ngandalu xel ay du ma fayonte ak yàlla yàlla lebal la ne la fay ma nga naan du ma fayonte ak yàlla kon kay yow jaroon ngay woor jaroon ngay def ah yow looy def nii da ngay gis ku- lu- weeru koor jeex nga gis kuy woor ñu ne yow looy woor damay fay ah da ngay fay yow da nga fi nekk nag da ngay fay yàlla da nga koo mën ah yow da- xoolal wax yooyu yàlla moo ko wax mi ngi nii ne ku dog na nga woor yeneen jour yu dul yooyu nga fay ma moo ko wax même bu fekkee waa ji dafa dee bu doon sa papa la mu dee wala sa yaay mu dee wala sa jabar wala sa mag wala sa benn frère nga xam ne woorul woon jour yooyu yonent bi nee na ngeen wooral ko fay ko waxuma la ak nag kuy dund moo tax ñun suñu diine dafa am problème li ko waral nag mooy Sénégal moom ah Sénégal nag nii la mun a melam suñu munee ba di jël ay kilifa diine yu xamul ci alxuraan lu dul waaw ñu leen di def ay kilifa lislaam kon Sénégal nii rek la mën a mel ni ngeen am daal li ngeen gis ci Sénégal daal li ngeen mérito Sénégalais yi bu ñu mënee topp ku xamul dara ci lislaam def ko kilifa diine ku xamul aani bee xamul alif ci mën naa mën nga koo tegal micro muy wax suba ba ngoon du ne yàlla nee na du ne yonant nee na du ne qaala rasul du ne qa- du ne imaam Saafi du wax Ahmad du wax Abu Hanifa du wax imaam Malik du julli inna lillahi ngi ñi ñi non man vraiment yéen non lii dafa ëpp ba pare ñu ne li ku di- diina lay woote nit ñi di topp di ko topp di yuux non mais dañ leen xoolaat suñu bopp kilifa diine buñ koy wax mooy ku xam dara ci diine mais kilifa diine boo xam ne mënul xul wallaahu ahad soo ko waxoon faraa idul wudu mu ne la sh- euh, sariya sama yoon nekku ci sariya sariya sama yoon nekku ci ñi muuru nañu muuru man muurulowuma kenn ah mbokk yi na leen ragal yàlla na leen ragal yàlla mbokk yi na leen ragal yàlla kilifa diine yu tere nit ñi julli di tere nit ñi jaamu yàlla di tere nit ñi ah lii Sénégal doy na waar de te loolu kilifa diine lañu wax kilifa diine kilifa diine ngay tere nit ñi jaamu yàlla doo leen julliloo doo leen woorloo amul saraxe amul dem màkk amul dara di yuuxu rek lii ban diine la lii lan ban lan fan la tegu xatta tarixa yi ñi ko fi indi woon sax santaane wuñu lii lii nit ñi nekke tey santaane wuñu jàng leen xasaay si xasaay di jàng leen li fi alaaji Malick bàyyi jàng leen li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi doo ci gis tey nit ñi li ñu nekke nii xeesal yeeg mees yeeg zipp yeeg yaramu neen yeeg tube yi ci waaw metti na xam nañ yàlla wan dëgg wërsëgal ñu topp ko xam nañ yàlla wan neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko kon war na ki nga xam ne dafa dog ci weeru koor mu fay lu tolloog la mu dogoon ñett la ñaar la juróom la yàlla mu ne wa ala alladina war na ci kaw gaa yi nga xam ne yutiquunahu ñoo ko mën yataxammaluunahu bi masaqa mën nañ ko de waaye suñ ko defee day nekk ci coono mën nañu woor waaye bi masaqatin li kibari sinni xala ñeneen a ngi ni beneen groupe boo xam ne tukki wuñu féebaruñu mën nañu woor mais dañu am problème ndax dañoo màgget wala feebar mën nañ ko mais feebar moo leen jàpp mën nañu woor mais buy balaa ngoon hmm, du baax ñii lan moo leen war taamu miskin yàlla mu ne ñooñu la leen war a mooy fidiya lan mooy fidiya ah fidiya mooy lan mooy nañ joxe nañu lele fidiya mooy lele joxe ndogu fal waajib ala man aftara li uzurin war na ki dog ndax ngant mimma zukira ci lu ñu waxoon sànq an yutima ala kulli yawmin miskinan na joxe bis bu nekk mu jox benn miskin muurum koor lu mu ndogoo wala qada alayhi du fay kii du fay lu tax ndax dafa màgget mënatul woor kii dafa feebar ba yaakaaruñ ci na dina wér médecin yi ne ko yow bul woor ndax feebar bu metti kii du woor du fay waaye lan moo ko war ci àtte lislaam yi mooy su nit ñi woore ba ngoon mu joxe ndogu waaw waaw ponkal mi nga xam ne day xëy daw ba géej ah daw 30 kilomètres ñëwaat dóor kilo mburu naan ñetti kaasu meew ba pare ngoon jot mu naan damay joxe ndogu ku ko laaj ndogu Sénégal da ngay gis koor koor jot koñ bu nekk nga romb gis ñuy ñuy ñuy tàngal kinkiliba soo nee lu xew ñu ne dañuy joxe ndogu ñun duñu woor ndogu la ñuy joxe ku leen ko laaj yàlla ne woor la ñu naan joxe ndogu ñii ñi ñu wax nañ joxe ndogu mooy ku màgget ku mënatul dara ak koo xam ne dafa feebar ba mënatul wér docteur yi nee nañ ko yow doo wér kii lañ wax ñaar ñii lañ wax mais fii man damay gis ay ponkal yu ne lëmm nga xam ne mun nañu téye mun nañu téye seen benn loxo mën nañ ci téye juróomi nit te duñu rëcc duñu woor ñenn ñi dañuy dañuy woor ñetti fan commencé dugg ci tànganaay yi di ndékki di añ restaurant yi di jaay boo laajee borom restaurant yi ñu ne la ñun koy koor gi ko yàlla bu mu jeex ndax ñun léegi la ñuy gën a jaral te nag ndeysaan chaque jour ma wax ko weeru koor buy waaye jeex gis nga koor fu muy tàmbalee fu ñu naan jeex na nga gis waa ji woorul koor gi yépp yaa ngi koy gis fii ci mbedd bi muy tux di naan ndox mu seet te gis nga kuy lekk ci weeru koor doo suur mukk yàlla moo ko def yàlla moo ci def secret da ngay añ ba tas te doo suur naan ba màndi yaa ngi ñi woor yéen a yem ba pare nga am gàcce ba pare koor gi jeex yow doo yokk benn benn virgule ci poids bu fekkoon ne waa ji daa sew day gën a sew doo yokk dara loolu koy musiba la yàgg ki wooroon yéen ñaar yéenay tolloo poids amaana sax amaana sax su ngeen roofoo woon mu teg la ci suuf gis nga moo tax ñàkk jom weesu jullit bu ne lëng allahu akbar am na benn kilifa kilifa kilifa kilifa laa leen wax de ponkal daawul woor ndeke weeru koor ba weeru koor jotee rek jabar ji aj ko ci kaw et immeuble bi am na fa benn pantare néeg bu mu naan foofu lay noppalu ndeke noppaluwul day añ doom yi jógee këram dem seen kër maam ñu ne leen an seen papa ñu ne ñu ne mu ngi foofu di añ rek weeru koor gi jeex mu dem di sol ànd ak ñoom nag di ziyaare ji mu ñëw rek waa kër gi ne ko yow ndeke daawoo woor mu ne ku leen ko wax ñu ne ko sa doom yi ñoo ñëw fi ne doo woor mu ne non ñoom dañuy wax rek damay woor de mu ñibbi rek tëj yóbbu leen ci néeg bi tëj yi jël si man ngeen di fenal vig jóor leen ma ñuy bëgg a dee ne nañ ko doon fenal du ma war ngeen may booleeg nit ñi waaye ba ngeen ba ma gisati ngeen def ko rek loolu daf ko jar boo buñ la fenalee fii nga dóor leen ay na la ana yàlla ana yàlla mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne gis ngeen ñii ñëpp nag nga xam ne feebar nañ wala dañuy tukki wala nangam ak nangam mu ne faman tatawwa képp ku volontaire xayran def lu baax woor zaada alal muddayni aw at'ama aksar min miskinin fa huwa xayrun lahu faman at'ama faman tatawwa képp ku volontaire soo woorul da ngaa feebar wooroo wala nangam ak nangam ñu ne da ngay leexle jaata mudd la la islaam sant du benn mudd mu ne boo volontaire nga joxe ñaar wala nga joxe lu ko ëpp fa man tatawwa képp ku volontaire xayran ci lu baax nga joxe saaku ceeb nga joxe fukki junni fa huwa xayrun lahu kooku rëy am na lu baax pour moom def na lu baax moo tax lislaam dafa bëgg bu la santee dara lu baax na nga ko def soo koy def nga def ko ci anam bu mu gën a rafetee jaamu yàlla yëpp li ci gën a baax mooy même julli julli sooy julli nga julli julli bu rafet salli salaata mutawaddi gis nga yéen ne booy julli julli julli kuy tàggatoo kenn ci ñun bu doon julli bi mu liqaamee rek malakal mawti ñoo ne ko boo sërmalee yow laay yóbbu maa ngi nii toog julli googu noo koy jullee ku nekk laaj ko sa bopp boo ne woon boo doon allahu akbar allahu akbar la malakal mawti dina insha allah sëlmalee rek wala yëpp julli googu mbokk yi noo koy eggalee bis boobu ndaw tëjwit bu neex allahu akbar ndaw rukoo yu sell keroog di nga julli julli koo xam ne doo xalaat dara ci àdduna loolu nag lañ bëgg ndeysaan ci ab jullit buy julli nga julli julli julli goo xam ne xamoo ndax di nga julliwaat suba xamoo ndax di nga julliwaat waxtu gi ci topp waaye iblis moo ñu dul bàyyi léeg-léeg nga ni allahu akbar rek mu génne la jàkka ji waxuma la mu génne la ci julli gi mais jàkka ji la lay génne nga dem sa kër régler ay problème yaa ngi jàkka ji de yaa ngi rukkoo yaa ngi sujjóot mais yaa ngi ci business bi yaa ngi ci marché yi di def say business ba dara taxul lu ñu ngi si juróom ñu ngi ñu ngi siggi ru sujjóot bu mujj di taaya nga dellu siwaat nag ñëw ànd ak waa jàkka ji ñëw toog waaw keroog bi ñu ma muy bi ñu ma yónnee image yooyu sama sama boîte Facebook ñu yónnee ma vidéo bi keroog keroog journée boobu yëpp normalu ma dañ ma yónnee benn julli goo xam ne bi gaa yi duggee jàkka ji dañu ne allahu akbar rek seytaane roofu leen ñoom ñëpp ñu génn jàkka ji ni ngay gisee seen ruu yi génn jàkka ji ñii di téléphoné ñii dem ci business bi ñii dem kër ga ñii dem ci seen soxna yi ñii dem fi ñuy liggéey dara desul lu dul dernier sujjóot ñuy taaya ñoom ñoom ñu ñëwaat toog nag asalaamaaleykum keroog te loolu moo ñu daal ñun ñëpp looloo ñu daal am na ñoo xam bu ñu ne allahu akbar rek génn nañ jàkka ji dañuy dem ba ñaari minute des ci julli gi ñu daw ñëw toog xaw ñu bëri ci ñun taaya rek la ñuy concentré wu ci julli taaya boo foofu ñuy waaj a wax asalaamaaleykum ñu dellu si ñoom ñëw toog asalaamaaleykum daal di toog fekk nag lu garaaw la loolu iblis moo koy def mooy fexe ngay julli te nekkoo fi doo teewlu rukoo bi doo teewlu sujjóot yi doo xam li ngay wax ngay përëx përëxi mbir mi daanaka nga pare fekk yow defoo fi dara geste rek nga doon def ay geste defoo jaamu yàlla amoo ibaadaat te gis ngeen alquran ba muy tagg jullikat yi dafa ne qad aflaha almuminuun allazina hum fi salaatihim xaashiuun laxdari bi mu ñuy jàngal julli dane lissalaati nuurun azim laa yanaaluhu illa alxaashiuun illa alxaashiuun mu ne julli dafa am leer gu rëy lissalaati nuurun azim tusriqu fi fi qulubi almusallin mu ne walaa yanaaluhu illa alxaashiuun julli dafa am benn neexit bu ci nekk benn bànneex benn leer mu ne day dugg ci xol yi mu ne waaye kenn du ko am lu dul kuy toroxlu ci julli kàbbar yi di mat taxaw yi di mat njàng mi di mat ruko yi di mat ki ñuy jàngal daf ma wax semaine bële passé benn hadis boo xam ne hadis bi maa ngi koy doog a dégg donte ne mokkaloon naa ko jàngoon naa ko mooy hadisu solaa bi yonent bi saa salaam naan qasamtu salaat bayni wa bayna abdi xaaj naa julli gi fatiha bi xaaj naa ko sama digganteeg sama jaam hadis bu doy waar mu ne xaaj naa julli gi sama digganteeg sama jaam sama jaam bu waxee bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin la ko yàlla di wax hamadani abdi mu ne am na benn boroom xam-xam boo xam ne buy julli su waxee bismillahi rahmani rahim day noppi gars yi ne ko lu tax ngay dagg mu ne dama bëgg yàlla di tontu su ma waxee comme yàlla day tontu su ne alhamdulillahi rabbi am yàlla day wax hamadani abdi mu ne damay may yàlla mu dugal tontoom lu may parax paraxi man yàlla laay waxal soo kon soo nee bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ma yoo yàlla fu mu tontoo te yàlla wane alhamdulillahi rabbil alamin mu ne hamadani abdi arrahmani rahim mu ne majjadani abdi wa dama ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ne haza bayni wa bayna abdi boo ne ihdina siraat al mustaqim mu ne wali abdi ma saala léegi nag boo defee rrr yàlla du tontu di ma yoo ko fu mu lay tontoo kon il faut ñuy def arrêt yi ndekki affaire yi dafa sew de loolu moo tax iblis du la tof parce que li ngay def yaa ngi ciy bàyyi xel waaye vër nañ ko dóor mu daanu ba ci azkar yi da ngay gis nii affaire du njëkkante di du njëkkante mais pour nga am tiyaaba la du njëkkante du rawante ndànk ndànk ndànk ba mu jeex bu ko defee kërëj kërëj dóor mu daan nañ ko dóor mu daan bu ñu ko dóoree mu daan du baax du baax di lu ñu war a taxawal bu ñu ko dóoree mu daan yaa ne ne aqim sala aqim mooy taxawal leen julli yéen ngeen ne dóor leen mu daan du baax di yàlla nañ yàlla jubal yàlla nañ yàlla xiir ci boppam mu ne wa anta suumu ngeen woor xayrun lakum moo gën ci yéen gis ngeen de yàlla sant la nga xam ne lim la sant moo gën nga def ko wa anta suumu ngeen woor xayrun lakum asiyaamu ala man yutiquhu walaw bi masaqa xayrun min al iftar ma al itaam woor ci ku nga xam ne mën na ko donte ne day sonn moo gën donte ne da ngay woor di ànd ak jox nit muy ndogu loolu moo gën gis nga bala ngay xam ne yàlla li mu wax fii wa anta suumu xayrun lakum moo gën nga woor woor yi ba koor jeex nga amoon ay fan ngay fay nit ñi di añ day metti ci yow dëkk bi yëpp yow doo nga ne kër gi yëpp kenn wooru yow doo nga woor day metti mais lenn saa yi sax bu fekkee ne dëkk bi dañoo woor wala kër gi dañoo woor ngeen ànd day oyof ndax da ngay xam ne yéen ñëpp da ngeen a woor mais kër gi ñëpp di añ ñëpp di ndékki yow doo nga ne cundum ñëpp di naan ataaya waaye ngeen bàyyi ba mu woor ngeen togg ceebu xonq bi xam ngeen da ngeen di fontu rek gis nga nga commencé di kaas ah li mooy lan tàmm ngeen ne balaa ngeen di togg lu neex rek ma woor gis nga nga commencé di ñax yàlla yàlla jubal doomu aadama yàlla rek moo ko xam wa anta suumu ngeen woor xayrun lakum moo gën ci yéen gis nga lu mu ci teg mu ne in kuntum taalamuun bu ngeen xamoon yàlla xéewal yi mu denc koor ci xéewalu ci àdduna xéewalu diine bu ngeen xamoon yan njëriñ ñoo ci nekk bu ngeen xamoon yan tiyaaba moo ci nekk bu ngeen xamoon lan la ci yàlla làq kon wallahi du ngeen fi nekk di hésité di tappale di dugg ci yu ngeen xamul yoo xam ne bàkkaar rek ngeen ci jëlee wa anta suumu ngeen woor xayrun lakum moo gën ci yéen in kuntum taalamuun bu fekkoon nekk ngeen di xam kon li mooy darsu tey bu amee ay njuumte ñu ngi koy jéggulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu amin ya rabbal alamin